muy nuyoo bi gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walif bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walif ko mu làmboo jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem